maa ngi tudd Seydina Issa Laye di porte parole bu ñetti collectif yi asalaamualeykum waa àdduna asalaamualeykum suñu mbokki réew mi di Sénégal asalaamualeykum waa Tànk muy les trois villages Lébu Ngor Yoof Wakaam ah suñu ñëw tey bi ginnaaw biñ ci jiitalee nuyu suñuy xalifa euh, Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione Cheikh Muntaha Mbàkke ak Serigne Aboubacar Sy Mansour dañu ñëwoon tay rek pour indi ay leeral ci at yi yëpp yëg ngeen ne ñu ngi dox ci suñuy kàdduy kilifa ci mbiru aéroport bi nga xamante ne mooy aéroport Léopold Sédar Senghor la ca xew yëpp nag duñu ci dellu ndax waxtu wi mayuñu ko waaye ñëpp xam nañu ne li ñu doon revendiquer les trois villages mooy am excitation boo xamante ne euh, njaboot gi dinañu fa mën a dem ah ci loolu nag bi ñu koy dox di ko dox yëg ngeen jamono yi passé amoon na ay arrestation suñu mbokk euh, di doom ak ñi mu àndaloon di euh, doomu libu gi euh, muy maam Birane ñu téye woon ko ci ay weer yu bëree bëree bëree bëri ah loolu nag bokkoon na ci revendiquer yi ñu doon revendiquer bobu ba léegi ñu leen di wax ne yàlla dogal ubil nu bunt ci ku ñuy wax le président du Diagne Diecko mu waxtaan ak le ministre Mame Mbaye Niang mi nga xamante ne moom it boobu ba léegi mu ngi doon dox ci loolu pour xool nu ñu ko yëwénale ba euh, njabootu tànk ñu defal leen li ñu bëgg ci loolu la ñu jotee bataaxal bu jugee ci son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall àllarba bii passé mu recevoir collectifu ñetti dëkk yi euh, bi ñu demee it ñu waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom la ñu yàgg wax mooy nañu jox aéroport bi ñu dëkk ci ndax dañu xat waaye it li dox ci diggante bi muy euh, juróom ñeenti doomi tànk yi nga xamante ne dañu leen téye woon ñu xamal ko ne ko suñuy kilifa yi nga xamante ne ñoo ñu yónni ñu ngi sàkku ci yow di la ñaan monsieur le président pour nga libérer leen ñu ñëwoon nag di indi ay information pour xamal leen ne loolu nga xamante ne ba ñu demee fekki ko dalal nañu ci ak dal ak accueillir nañu ci jàmm te xam na ne ñun ñii dañu bokk ci ak njabootam ah ba ñu waxtaanee ak moom xamal ko ne ko Euh, dañu koy ñaan ngir mu libéré maam biraan ak doomu tànk yi nga xamante ne téye na leen wax dëgg yàlla moom la président de la république jël na ay matuwaay fa ñu toog ba joxe ndigal tey jii ñu leen di xamal ne la mu waxoon ne bu ñu xëyee ci ngoon gi dinañu leen bàyyi démb ci ngoon bàyyi libéré nañu Mame Birane ak doomi tànk yi nga xamante ne ñoom la àndaloon li nga xamante ne nag moo jëm ci teeru aéroport bi amaana mbir léeg-léeg ñu la ciy wax wax di juge fu ne euh, di ñëw ci yow waaye ba ñu toogee ak moom am na lu bëri loo xamante ne leeral nañu ko ci aéroport bi xamal nañu ne moom le président de la république ne aéroport bi du fi musa a aéroport lay doon moo tax mu jox ko mu def ko base militaire la nga xamante ne mu nga fa ñu ko doon euh, joxe it am na loo xamante ne levé ko te bu ñu bu ñu ko dee levé dina jël ay ati at pour ñu yëkkati euh, euh, mbir moomu pour ñu mën ko dëkke lafa nekk bëriwul lu ndaw la waaye ngir mbokk ngir bañ a euh, ne neenal askan wi nga xamante ne mooy askanu tànk ca la lijjante lu mat quatre hectares teg ko ci suñu loxo ñun trois villages yi waaye en la ko defee lu jiitu loolu it euh, la nga xamante ne moom la jox wakaam ci aéroport bi dégg ngeen ko la mu jox euh, quinze pour cent ya mu jox yoof pour ci wàllu équipement muy yu demee noonu dégg ngeen ko ak six mille six six six six mille mètres carrés yi mu jox euh, Ngor pour ñu def ko lycée kon tey jii nii ñu ngi koy wax ne monsieur le président ñu ngi koy sant di ko gërëm ci gest bu rafet boobu mu defal askanu tànk waaye di ko wax ne ko na dolli ndax benn hectare wala ñaari hectare population Ngor ak Yoof mënuñu ko dëkke waaye nag sa kilifa du la woo jox la ba pare nga di ko neenal loolu rafetul loolu du wàllu as kon monsieur le président de la république ñu ngi lay ñaan loolu nga ñu jox nga dolli ko te xam ne sax njaboot dañu soxla te ñu ngi te xam nañu ne ni nga ko waxee ne jox nga ñu dinga nga ñu dolli am nañu yaakaar ne loolu dina dina dina nekk ci nu mu gën a gaawe euh, wax na it mbiru dagga xol muy mille parcelles yi nga xamante ne jox na ko les trois villages nga xamante ne mooy Ngor mooy Yoof ak Wakaam nga xamante ne village bu ne dina la jox vingt cinq parcelles vingt cinq hectares vingt cinq hectares yooyu yéen ñëpp xam ngeen ci lu doon suñu position mooy du ñu ko jël tant que waxuñu ñu li ñuy am ci aéroport bi monsieur le président nag ñaan nañu xamal ñu ne loolu euh, pôle urbain boobu daf ko def pour nu mu tudd ubbi nu mu tudd euh, dëkk yi pour ñu mën a gën a am environnement bu bu bu bu bu normal bu estable pour mu gën a yaatu ñaan nañu it pour ñu jël ko loolu mu ñu ñaan it comme ni ñu ko ñaane ngir mu bàyyi maam biraan ak xale yi mu mu def ko may ñu ko ñu ni tamit dinañu delluwaat suñuy population ak suñuy kilifa joxaat leen loolu ñaanaat leen loolu ngir ñu jël ko asalaamualeykum ñu ngi gërëm ñu ngi dellu nag di gërëm ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre Mame Mbaye parce que wax nañu ko monsieur le président de la république xamal nañu ko ne Mame Mbaye Niang li nga xamante ne def na ko amaana ñi nga xamante ne ñoo ko doon toogal fii si suñu dëkk yi yor baatu euh, trois villages yi ñu ne ñoom ñoo ko yor amaana toogaay bii nii ñu Mame Mbaye Niang may suñu diggante ak le président de la république ñoom la waroon te bu ñu ko defoon defe naa solution yi dina teel a régler comme nii ba ay arrestation yi nga xamante ne amoon na ci du ci am kon tey jii nii ñu ngi leen di xamal tamit ñun collectif tànk bii euh, te encore wax nañu ko ne demande bi demande coutumière la waaw maanaam Euh, jox na ko teg ci suñuy kilifa gis nañu nag ñetti dëkk yi kenn gënul légitime euh, imam raati bi ak frais yi nga xamante ne ñoo nekkal ñoo nekkal euh, dëkk yi ci ci ci ci biir dëkk yi ak ki nga xamante ne mooy suñu wayjur di la xalif général des Layènes te le porte-parole Seydi Mouhamadul Amin Laye yoroon cachet ci biir collectif yi loolu nag vraiment président rafetlu na ko mhm. te it xamal nañu ne waxtaan wi bëggoon na ko waaye ñàkk ku mu waxal moo moo moo moo ko waraloon ndax dafa bëri woon ñoo xamante ne dañu doon ñëw di revendiquer même mbir mi nga xamante ne moom la ñuy revendiquer bu ko defee it kon ñu ngi leen di xamal ne collectif yi amuñu benn politicien amuñu kenn koo xamante ne mu ngi seen gannaaw di leen jox xaalis wala mu leen di dicter wala mu leen di financer lépp lu ñu def ñun ñoo ko def ngir lan ngir suñu askan te ñu ngi leen di xamal ne lii ñuy xeex ñun soxlawuñu ci dara lu dul dimbali suñu askan moo ñu tax a jóg moo tax ñuy bàyyi suñu lépp ngir ñu am euh, environnement bu stable bu sell bu yiw bu dal kon daal ñu xamal ne mbokk yi lii lañu leen doon indil ñu ngi dellu di santaat le président de la république ci at bu noble bi nga xamante ne defal na ko waa tànk salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.